وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kon mbokk yi ñi ngi dajawaat ak yéen ci sunu téere bi di riyaadu saalixiin bi nga xamee ne nii mujjoon nañu daje ak yéen ñi ngi mujjoon ci xadiisu ñaari téeméer ak benn muy 201 bi ñi ngi waroon a dal xadiisu 202 bi waaye xadiis la boo xam ni gudd na guddaay bu mën a jël sunu dars bi yépp loolu moo taxoon dañoo gisoon ne mën nañu junj la nga xamee ne nii rek moom mooy maanaa bi waaye ñu tàmbalee ci bunt bi nga xam ni mooy ñaar fukkeele bunt ak juróom benn ci téere bi muy baabu taxrimu zulm wal amr bi raddil mazalim baabu taxrimu zulm wal amr bi raddil mazalim mi ngi noonu kon incha allah foofu la ñuy tàmbali fi mu waxee ni maa li zalimina min xamimiyu wala shafiin yutaa
باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم قال الله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع سورة غافر وقال تعالى وما للظالمين من نصير سورة الحج وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء rawaahu muslim
mbokk lii mooy baabu taxrimu zulm wal amru bi raddil mazalim buntu araamal tooñ ak digle ci ñu delloo la nga xam ne mooy tooñ ya qaala allahu taala وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع du ñeel toonkat yi la nga xam ne mooy ab xarit wala kenn kuy ñaan ndimbal ku ñuy déggal ca ñaan ndimbal googu muy intermédiaire wa qaala taala wa ma lilzalimina min nasir ña nga xam ne ñooy tooñkat yi duñu am kenn ku leen dimbali وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه بودينتي حديث ييغا خامن داي جانغالي ني توغ باخول من نانتا جيفانديكو حديث أبو ذر باغا خامن رومبون المتقدم في آخر باب المجاهدة تا جيتو وون تا لمجون تا بنتو la nga xam ne mooy def ay effort ci diine yàlla ji ñaari téeméer ak ñett ci xadiisu téere bi wa an jaabir radiallahu anhu anna rasul allahi salallahu alayhi wa sallam qaal ittaqu zulm yonente bi mu ne moytu leen tooñ fa inna zulma zulumaatun yowma alqiyaama tooñkat ay lëndëm lay doon yowma alqiyaama wattaqu shox moytu leen xér te mooy xér ca la nga xamee ni nii mooy ba romb sa alali bopp bëgg a jël alali keneen fa inna shoxa la nga xam ne mooy xér gu tar googu ahlaka man kaana qablakum alak na ña nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon xamaluhum ala an safaku dimaahum yóbbu na leen ci ñu tuurante seen deret ya wastaxalu maxaarimahum daganal la yàlla araamaloon ci ñoom xadis bi mujj an abi hurayrata radiallahu anhu an rasulullahi sal allahu alehi wa sallam qaal mu ne yonente bi alehi salaam nee na la tuaddunna alxuquqa ila ahliha yowma alqiyaama da ngeen delloo aq da ngeen joxe aq yépp jëme ca ña ko moom yowma alqiyaama xatta yuqaada li shaati aljalxaa min ashaati alqarnaa ba baa sax yàlla di fayul ka nga xamee ne mooy xar ma amul woon ay béjjën ca xar ma amoon i béjjën ca daal di koy tooñ loolu mbokk niñ ko waxee ci njëlbeen xadis boobu ñu jël nga xam ne mooy xadisu abdullah ibnu zubayr bi digganteem ak papaam la xadis bi di tënk rek mooy ki nga xam ne mooy papaam bi zubayr ibnul awaam nekkoon na koo xam ni dafa susum ci yonent bi ba yonent bi tudde woon ko sax moom mooy li ñuy tudde aide de camp tey alxawaari moo nekkoon goro abu bakar doon denc asma bint abu bakar yàlla natt woon na ko bi muy faatu mu amoon bor yu bari lool mu daldi woo doomam ne ko kat lenn dong ma jaaxal sama gannaaw mooy sama bor yi ma gàddu maa ngi lay dénk nga def ci sa kemtaleel kàttan te loolu itamit dañuy jàngal ne bàyyi bu deeyee lam bàyyi doom yaa ko moom waaye bu bàyyi ay borit nañ xam ne doom ya ñuy priorité ci fayal seen bàyyi seeni bor kon def ci sa kemtaleel kàttan heure boo demee ba jaaxle na nga ne yaa mawla Zubayr iqdi anhu dayna na nga ne ay yow mi yaakaar yu zubayr yow mi péetum zubayru ca mooy baay bi kiy wax ak moom moo tudd zubayru yal na nga ko fayal ay borom ca mbokk kooku du kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala saxaaba yi xàmme woon nañ aq yàlla ak aq yonent yàlla ñu ngi noonu su ko defee kon na nga ñaan yàlla mu jàppale la ba nga fay samay bor ala kulli xaal booba Zubair bàyyi woon na la nga xamee ne nii ay tool tool ya taxu ko woon a am noonu solo waaye yàlla indi ak wëlbatiku jamono place tool yooyu mujj am valeur mu daal di koy jaay jaay gam ko jaay tax na fayal na baayam bor yépp teewul ñoom ñu donn lu bari ñoom ñi nga xam ne ñooy ak njabootam loolu ñu dégg ci ni képp koo xam ne nii da nga yori bor awalan bor ba caaxaan bu mu tax nga dugg ci ne doon lu am farata yéenal yénn bu sell fay ko su lii amee rek yàlla dana la ko fayal sa gannaaw loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala indi ay mbir ba yàlla mujj ko fayal gannaawam gis nañu sunu borom lu ko neex lay def parcelle gi amoon na ay temps boo amee cinq cent mille sax am kër léeg-léeg un million am kër waaw trois cent mille tey dem nañ ba daanaka vingt millions boo ko gàddu woon mën nga wër fi yëpp doo gis kër loolu ci mbir yàlla su ko defee kon zobéeri loolu la ko yàlla defal mujj mu am bañ jaayee toolam yooyee mu am ca loo xam ne fay nay borom ba doom yu doon ci lu bari mu amit lu am solo luñ ci war a dimini ko mooy doomu aadama yaa ngi nekk ci àdduna lépp looy kër-kër yi mu të ñaanal yàlla mu dimbali la moo tax mu ne ko soo demee ba nar a jaaxle rek neel yaa mawla zubayr iqdi an hudayna e yàlla yow mi yaakaaru zubayr yàlla na nga ko fayal ay borom loolu mooy tënk hadis bi nga xam ne jiitu nañ ci amma bu dee bunt bi ñu dal tey muy tere araamal li nga xam ne mooy tooñ fii ci àdduna nit ki mën nga tooñ waaye sa papa ministre la wala am nga xaritu procureur ñu daal di dox sa digganteeg lañ la naroon a teg ca tooñ googu sun borom nag mu ne yowmal qiyaama waa ji tooñ ca tooñ ga dafa am ay grade tooñ gi gën a màgg mooy tooñ yàlla mooy tooñ ci shirk tooñ ci shirk mooy tooñ bi gën a rëy sa borom bind la pour nga jaamu ko ngay jaamu keneen loolu mooy tooñ bi gën a rëy boo xamee ne nii nit dana ko def ci kaw suuf su boobaa amul kenn ku lay dimbali sa war a nga jëm fa ngay sax ba faw beneen bi mooy tooñ sa moromi jaam yowmal qiyaama itamit amul kenn kuy dox sa diggante ak yàlla àtte seen diggante ba nga delloo ko la nga xam ne mooy àqam du am xarit bu lay gàddul tooñ googu du am kenn kuy ñëw ci yàlla na ko yàlla baalal diw tooñ gi xamim amul shafii amul loolee di mbir moo xam ne bu jara bàyyi xel la borom bi it noonu la waxee ne suñ demee baaji tooñ bi ñu koy mbugal amul kenn kuy ñëw di ko wallu si amul kenn kuy ñëw di ko wallu si bu dee nii ci xadis yi ñu jàng mu ne bokk na luñ cey daliloo xadis bañ jàngoon ca baabul mujahada romb nañ ko ci téere bi mu ne boo demee xadis ba ci mujj ca mooy fa sunu borom di wax naan yaa ibaadi inni xaramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tazaalamu sunu borom day wax ca la ñu jàngoon ca mujahada ay yéen samay jaam man de araamal naa tooñ sama bopp du ma tooñ sama benn jaam waaye araamal naa ko seen diggante yee nit bu kenn tooñ sa moroom loolu muy wane ne heure booy tooñ sa moroom du ne moom rekk nga tooñ tooñ nga ko tooñ nga yàlla wax yàlla moo araamal tooñ googu loolee di mbir moo xam ni ku ne war na ci bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci it ne ngalawaay day leen ragal tooñ day leen ko daw ni ngay dawee oto bu lay bëgg a fiir day leen daw tooñ ragal leen tooñ ndax tooñ ay lëndëm lay indi yowmal qiyaama bokk yowmal qiyaama parcours bu gudd la fa ngay génne sa bàmmeel fa lañ defee xash fa ñu lay xisaabe fa ngay jéggi siraat ay étape la yonent bi alei salaam ne leen nag tooñ yi nga tooñ ci àdduna dalay jural ay lëndëm yowmal qiyaama comme tuyaabala nam lay jurale ay leer tey ji ngay gis koo xamee ne ni da doon tukki tey mën na dem ci àll bi oto bi mu yor mi ngay ki projecteur man ngaa dem ba mujj rek le an lampe oto bi yépp fay lampe oto bi yépp fay ngeen nekk ci lëndëm total loolee ku yàgg a dégg dañ koy gis ñun ñi yàlla mas nañu ci nattu ñuy dem di dawlu ci ay bëri deux heures du matin sax jëm Louga dañuy dem ba mujj rek oto bi am benn panne électrique boo xam ne faar yi yépp àndandoo na kamac te loolu xam nga bu dee ne du chauffeur bu mën a dawal fekk yaa ngi ci lëndëm gu tar musiba mën na laa dikkal loolu it moo tax mu ne étape yi ngeen di jaar yowmal qiyaama am na ci yoo xam ne tooñ dala fay jural lëndëm gu tar te loolu lum lay jàngal loolu mandarga mbugalum yàlla bi wàcc ci yow la loolu comme ñu bàyyi ci xel mu ne gannaaw ba it moytu leen la nga xam ne mooy a soxa soxa mooy nay gu ànd ak xir nay nga ba li nga yor doo ca joxe waaye yaa ngi bëgg leneen lu jóge ci nit ñi sax di ñëw ci yow xem même alalu nit ñi amoo lenn loo leen di mën a jëriñ loolee la sunu borom di wax ci beneen aaya ne wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ku dem ba xiroo ci alal bëgg ko génn bëgg gi yow day bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo texe kon na ngeen moytu loolu nga xam ne muy xër googu moo alagoon ñi leen fi jiitu woon ndax yóbbu woon na leen ba ñuy tuurante deret te loolu lu ko waral mooy millionnaires yi nekk fii ci biir baadoole yi ca amaluñu leen benn njëriñ duñu leen dimbali duñu leen fajal soxla gisuñu lenn lu baax lu ñu def ñoom it bu ñu amul tënk bu leen tënk ci yàlla fokk ñu jéem a attaqué ñooñu ngiree jël seen àq ci alal ji mu ne nag ñi fi jiitu woon borom alal yennayee woon seen alal moo taxoon baadoole yee mere leen een leen bay ah xeex ak ñoom loolu it demoon na ba ñu dem ba daganal la yàlla araamaloon ci ñoom bëgg alal googu da ngay gis benn waay boo xam ne yàlla dénk na ko alal waaye ma nga dem di dugg ci wàllu riba bi wàllu carte bi wàllu luye ñuy jaay sangara luye ñuy PMI jël riba yi nekk ci banque jël kaza wa kaza lan moo ko waral muy xiir goo xam ne xiir nañ ko ci bëgg alal loolu kon moytu leen ñaar yooyu moytu leen tooñ moytu leen xiir ndax day indi rayante day indi araamal la nga xam ne yàlla subhanahu wa taala day indi daganal la yàlla subhanahu wa taala araamaloon sunu yonente sallallahu alayhi wa sallam tiitloo ñu lool ci ne yàlla du sàgg ne benn tooñ boo tooñ sa mbokk julit wala boo tooñ sax nit ci boppam yonente bi alayhi salaam mu ne koo yoral àq ci àdduna da nga ko jox yowmal qiyaama koo yoral àq da nga ko jox yowmal qiyaama àq ba na doon alalam joo jël la deretam joo tuur la derem boo yàq la yowmal qiyaama da nga ko delloo sunu yonente sallallahu alayhi wasallam ne xatta bàyyima yi yàlla da leen di dajale yowmal qiyaama te xam ngeen loolu yàlla subhanahu wa taala ma ngi koy wax suratul anam mu ne wa ma min daabatin fi l ard wala tairin yatiru bi janaxayhi illa umumun amsalukum ma faratna fi lkitaab min cheyin summa ila rabbihim yuxcharuun amul lenn luy dox wala luy naaw lu dul dañoo nekk ay communauté comme yéen doomu aadama yi yowmal qiyaama yàlla da leen di fang dajale leen te loolu it la jullit war a gëm mboolem li fi mas a jaar ci gaynde li fi mas a jaar ci jaan li fi mas a jaar ci ay picc yu naaw lépp lu yàlla di dekkal yowmal qiyaama looloo tax mbir la moo xam ne kenn mënu la wax ñàngaay yowmal qiyaama na muy mel léegi nag yàlla commencé di atte diggante jaam yi ba da ngay gis benn xar boo xam ne dafa mën béjjënam ñoo fekk benn xar amul béjjën mu dóor ko mbëkk mën na am losoo damm na wala toj na bopp ba yowmal qiyaama yàlla dana fekk xar mi amuloon béjjën mu saxalal ko ay béjjënam rocci xaru béjjënu xar bale kooku fayu lam ko defoon ci àdduna ci fayu bu gën a garaaw gannaaw ba nag bu yàlla fayolooy bàyyi ma yooyu yépp ñoom yàlla da leen di wax kunu turaba ñu dëwal bëtiku nekkaat suuf dellu ci dara léegi nag mu des nit ak jinne ñoom la yàlla di atte di tàbbal ñi aljanna di tàbbal ñi sawara kon yàlla bu dee ne ñaari xar yiy mbëkkante lañ jote yàlla xam na ko note na ko ci téeréem da leen di atte yowmal qiyaama ana yow ak doomu aadama looloo tax ba julit day moytu tooñ ak tooñ ba nu mu mën a doon xatta yéefér bu ko tooñ xatta bàyyi mu bu ko tooñ yonente bi alayhi salaam nee na am na benn jigéen yàlla dana ko tàbbal sawara sabab ba mooy benn muus la jël tëj ko ci benn néeg ba muus ba dee fa loolu la ko yàlla di tàbbale sawara lay wañit ne léeg-léeg nga romb ci tali bi benn waay mi ngi jël une tonne et quelque teg ko ci kaw benn fas ba pare boole jël xiiram di fipp di dóor loolu mbokk nekkul lu baax bépp tooñ boo tooñ bàyyi ma loolee da ngay gis ne dalay topp yowmal qiyaama su ko defee kon la suñu borom ne ittaqu zulma wala yonente wala sax ittaqu zulma day ëmb mboolem farma tooñ yi ba farma tooñ jeex yal na yàlla musul ñi ci tooñ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رواه البخاري
xadis bi nga xam ne mooy ñaar téeméer ak juróom ci téere riyadu salihin an ibnu omar radiallahu anhuma qaal kunna natahaddas kunna natahaddasu an xajjati lwada ñun nekkoon nañ di waxtaane lii di ajug tàggatoo gi wa nabiyu bayna azhurina ca yonent bi salallahu alai sallam mi ngiy dund ci ñun wala nadri ma xajatul wada donte na jamono jooju xamuñu woon luy ajug tàggatoo gi xatta xamida allah rasulullahi salallahu alayhi wa sallam wa asna alayhi ba baa yonent yàlla bi sant yàlla tagg yàlla thumma zakara almasih dajjal gannaaw ba mu daal di fàttali tudd kii di masih dajjal muy dajjal bi ngeen yàgg dégg fa atnaba fi zikri mu daal di guddal jotal lool ca wax jam ko doon tudde wa qaala ma baasa allahu min nabiyin illa anzarahu ummata mu ne yàlla musul yónni benn yenent lu dul tiit waar na ci xupp ci la nga xam ne mooy xeetam ci ñu moytu ko anzarahu nuux wa nabiyuuna min baadi moytu woon na musibaam kii di nuux ak yenent yi nekk ci gannaaw ñépp moytuloo woon nañ ko seeni xeet wa innahu in yaxruj fiikum fa maa xafiya alaykum min sha'ni mu ne amaa yéen moom bu génnee ci yéen du nekk lenn luy lënt ci yéen ci ay mbiram fa laysa yaxfa alaykum wala boog mu ne fa maa xafiya alaykum min sha'ni la nëbbu woon ci ay mbiram fa laysa yaxfa alaykum dootul nekk di nëbbu ci yéen salaasan mu wax loolu ñetti yoon mu ne preuve bi gën a rëy mooy inna rabbakum laysa bi awar seen borom yàlla pattul wa innahu awar aynul yumna ca moom daa patt bëtu ndeyjoor ba ka annahu ka anna aynahu aynabatun taafiya mu mel ni bëtam ba dafa mel ne benn raisin buy tëmb ci ndox noonu il ala inna allaha harrama alaykum dimaakum la am mooy yàlla araamal na ci yéen seen deret yi wa amwaalukum ak seen alal yi ka xurmati yawmikum haza comme araamuk seen bisu tey bi fi baladikum haza ci seen dëkku tey dëkk fii fi shahrikum haza ci seen weeri fii ala hal ballaghtu moo ndax man jottali naa qaalu naam ñu ne ko akay qaala allahuma ashhad salaasa mu ne yàlla seedeel ñetti yoon waylakum aw wayxakum ca loolu araba ko daan wax rek mooy wane ne alkaanga ñeel na leen ca mooy wax la boo xam ne pour attirer attention nit ki ci yow la laa tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd ay waay bu leen dellu sama gannaaw nekk ay yéeféer di dóor lenn ci yéen loosu ñeneen ña ca des ci yéen bokk kii di abi hurayra wala abdullah ibnu omar nee na ñun daanañu wax ajug tàggatoo gi waaye mu ne boobu dañ ko daan wax noonu rek xamuñu woon dëgg-dëgg lan mooy mbir mi te boobu yonent bi alayhi salaam doon wax e yéen nit ñi déglu leen mën na am dootuma dajeeg yéen ci seen place bi yàlla mi dogal lu ko neex gannaaw aj googu yonent bi dundul ñetti weer daal di wuy ji boroomam mu ne nag keroog bi yonent bi dajeeg ñoom ca aj googu nee na bokk na bi mu sante yàlla tagg yàlla di discours lu mu wax mooy mbiri masihi dajjal wax ca guddal ca ba lenn ci saxaaba yi ñoom bu ñuy nettali xadis yi dañ naan yenent bi daanañu xupp masixi dajjal ba ñu jàpp ne mi ngi ci gannaaw tàndarma yi sax léegi mu feeñ ci ñun mu ne nag loolu kon guddal na ca lool mu ne masixi dajjal bii ma leen di wax amul benn xeet amul benn yonent lu dul xupp na ci xeetam nuux la ak ñi ñëw seen gannaaw yépp ca loolu li ko waral yonent bi alei salaam nee na bi yàlla bindee aadama alayhi salaam ba ba àdduna di tukki doomu aadama yi du ñu dajeeg fitne bu gën a rëy fitne masixi dajjal masixi dajjal nit lay doon bu ko defee day génn yàlla may ko kattan kattan goo xam ni njabar gu tar lay doon dana commencé woote ne yàlla moo ko yónni ba mu yàgg mu ne nag may yàlla nit ñi topp ko la ëpp ñu koy wër mooy ay yahut su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dana def ci kaw suuf ñeent fukki fan dana am benn fat boo fan boo xam ne yàlla day nattu doomu aadama yi ba mu gudd ci ñoom mel ni at beneen fan ba ca tegu mel ni weer beneen fan ba ca tegu mel ni semaine amma yi ca des mel ni sunu fan yi léegi si dana wër àdduna ba mu jeex Makka ak Madina rek la dul dugg fu mu dem ne leen may yàlla suñ ko gëmee mun a asamaan tawal asamaan taw mun a suuf meññal suuf meññ dëkk bi naat mu jàll bu demee ci dëkk nee may yàlla ñu bañ mu buub la fa nekk ci lu baax ne asamaan bu fi taw suuf bu fi meññi loolu nag kattan googu mu am loolu moo tax day fitnaal nit ñu bari ba ñu bari dañuy mujj jàpp ko ne mooy yàlla looloo tax xatta ñi jàng tuuti léegi bi ñuy julli timis ñaan nañ yàlla musal leen amin sharri fitnati masixi dajjal nañ yàlla musal fitnay masixi dajjal yeneen bi ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaye yéen jullit ñi xam ngeen ci loo xam ne xëy du jëkk ya xamuñu ko ci woon yàlla may na ay màndarga yu yàlla wane mu ne xam leen ne seen boroom pattul ca it mbokk jullit dafa war a gëm ne sunu boroom nee na am na ay bët dañuy gëm ne am na ay bët nan la bët yi mel sunu boroom laysa ka mislihi shay dara melul ne moom dara melul ne moom waaye nee na am na ay bët mu ne nag xam leen ne yàlla pattul ca masixi dajjal daa pat batu ndey jor ba dafa mel ni ab raisin bu ñu tëmbaloon ci ndox noonu la mel du ca gis benn bët lay gisee am na yeneen riwaaya yoo xam ne day wone ni ci jëbi dañ ciy bind kaafir jullit bu ko gis sa pas-pas sell da nga koy liir ñu bind ko ci kaafir am na ay fitna yu bari yu mu def ci kaw suuf loolu dafa laaj waxtaan spécial ala kulli xaal ka kay mujj rey mooy isa ibnu maryam mooy almasix ibnu maryam kii mooy almasix dajjal almasix ibnu maryam la yàlla di wàcce su ko defee moo koy dàq su demee ba jàkkaarloog moom dafay seey gis ngeen loolu la ko yàlla di jeexale fitnaam ci kaw suuf loolu kon ñu gis loolu la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax mu ne nag gannaaw ba mu waxee fitna masihi dajjal ba ba pare mu ne ay yéen xam leen ni yàlla araamal na ci julit muy tuur dereti mbokk julitam loolu it mi ngi noonu julit dara warul jar ngay dem di reyante ak sa mbokk julit dara ci àdduna jaru ko ngay reyante ak sa mbokk julit abadan mu ne it yàlla araamal na seen alal yi ngeen di ko lekkante ay waay maa ngi leen di moytuloo loolu xam ne araam na comme ni mu araame màkk gi comme ni mu araame weer wi di weeru tabaski ak bisu tabaski bi te yéefiri màkk yi xatta gëmuñu woon àllaaxira ak yooyu màkk dañ koo warmaaloon ba nit daana daje ko rey bàyyam mu koy wër ay at bu dajeeg moom màkk day màtt loxoom wi cax rek waaye du ko laal ndax foofu dañ jàppoon ne ku fa laal dara rek alku xatta bàyyi ma yëgg deme noonu rawatina nag jamonoy aj moom moo tax nag yonente bi alayhi salaam nag ne année bi yépp place yépp ni mu araama ñu jalgati màkka noonu la araama ñu jalgati deretu julit wala alali julit ndax jottali na ñu ne ko aha kay yow mi yàlla yónni jottali nga ca nangu nañu loolu mu ne nag maa ngi leen di moytuloo bu leen wëlbatiku doon ay yéeféer di coronte la nga xam ne mooy ay jaasi ca loolu mbokk buntu la ci buntu kufru doonte ne du kufru bu lay génn ci diini lu dul nga jàpp ne dagan na yonent bi alayhi salaam nee na qitaalul muslim kufru wa sibaabuhu fusuq jël jaasi di xeex ak julit jël mitrailleuse di xeex ak julit nee na loolu kéeféer la amma taxaw di ko saaga loolu al al al fisq la mooy al kat jënnug topp la kat corte la allahuma lu dul bu dee da ngaa jàpp ne kii kat dagan na ma rey ko ca deful la tax ñu war koo rey loolee da ngay gis ne moom dafay dugg ci wàllu pas-pas la lay def kéeféer dëgg du rey gi nga ko rey mais gëm gi nga gëm ne da nga ko ne dagan na nga rey ko amma bu dee da ngeen a siq ay tool siq syndicat siq nangam sa mer moo la yóbbu nga rey ko waaye xam nga ne rey julit daganul su boobaa def nga lu ñuy tudd kufrun duunu kufr mooy kéeféer goo xam ne génnewu la ci lislaam waaye nag def nga danger bu rëy rëy rëy su ko defee kon ñu xam ne lan moo war a tax ñu rey julit mooy dafa majeur am soxna wala am jëkkër ba pare njaaloo ñaareel bi dafa rey nit ca moo ko tey ñetteel bi dafa nekkoon julit xëy bàyyi lislaam ñett ñi ñëpp dañ leen war a rey kan moo leen di rey ndax ku nekk am na droit rey leen déedéet atteekatu lislaam rek am droit rey leen atteekatu lislaam dong moo am droit rey leen looloo tax war nañ ci yar sunu doom yi wub sàccee ñu ne sàcc na de dóor ay birig ba mu sedd guy mbokk loolu doom yi julit warul bokk ci loolu abadan sàcc rek du tax ñu rey nit ki loolu ñu bàyyi ci xel cayit rey ki ko am droit def mooy attekat loolu mi ngi noonu allahuma lu dul waa joo xam ne ne dafa ñëw bëgg laa rey yow amoo noo ko mën a défendre wu lu dul mu dee yow jublu woo rey ko da nga caa jublu défendre sa bopp même loolu moom bu ca deeyee moom day perte mais yow sa jubluwaay bu mu nekk jóg di ko rey soo ko mënee blessé it ba mucc ci deem da nga ko war a blessé wuloo yëgg ci rey ko loolu kon te mbir yoo xam ne dañ cee war a bàyyi xel bu baax ñu ngi noonu
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سورة هود متفق عليه وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه
kon sunu xadisu ñaari téeméer ak juróom benn bi di 206 ci riyadu salihin وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض كو خمني دفا تون ci yaatuwaayu loxo mooy boo tàllalee sa fi ngay takk montor kese jëm suuf muy yaatuwaayu loxo bi nii ci suufas jàmbur tuwiqahu min sabi aradin ku mel noonu yowmal qiyaama dees na ko caqal suuf soosu gas ko ba juróom-ñaari suuf wékk ko ko xadis bi ci tegu abi musa al ashari moo koy nettali mu ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي لظالم يلا داي دنا باي باي لي اجي توغ مكاي سيتان فاذا اخذه لم يفلته وبوكو جابي دوكو رتش ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه من ني داي موي سا جابوك بروم اور بو جابي اي دك فك دك يو دانيو توغ ان اخذه عليم شديد ndax jàppam nekk na loo xam ne lu tar la waaye lu metti la bi ci mujj an muaz radiallahu anhu qaal baasani rasulullahi sal allahu alehi wa sallam fa qaal yonent yàlla bi day moom ma yónnee woon mu ne innaka taati qawman min ahlil kitaab yaa ngi dikkal xeet bu bokk ci ahlul kitaab fad'uhum ila shahaadati an la ilaha illa allah soo demee woo leen ci ñu seede ne kenn yeyewul ñu koy jaamu ku dul yàlla wa anni rasulullah man nag maa yonent yàlla fa in hum ataau li zalik bu dee ñoom wuysi nañu ci loolu fa alimuhum anna allaha qad iftarada alayhim xamsa salawaat xamal leen ne yàlla farataal na ci ñoom juróomi julli fi kulli yawmin wa layla ci bépp bis ak bépp guddi fa in hum ataau li zalik su dee na ñoom wuy si nañ ci loolu fa alimuhum na nga leen xamal an allaha qad iftarada alayhim sadaqatan ne yàlla farataal na ci ñoom sarax te mooy zakat tuqazu min agniyaihim fa turaddu fi fuqaraau fi fuqaraihim bu ñuy jële ca ña woom la ci ñoom di ka delloo ca ña ñàkk ci ñoom fa in hum ataau li zalik bu dee ñoom nag wuy si nañ ci loolu fa iyaaka wa karaima amwalihim maa ngi lay moytuloo di laal la nga xam ne daa tedd ca seen alal ya wattaqi da'wat al mazlum ca nga moytu sa kéemtalal kattan ñaan yàlla ku ñu toon fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab ndax diggante ñaan yàlla ku ñu toon dara doxul digganteem ak yàllal benn kiiraay mi ngi noonu mbokk xadis bu njëkk bi suñu ay Aïcha nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki sàcc ki ki jël wala ki tooñ ba jël suufas jàmbur waxuñu nga jël terrain waxul nga dugg ci terrain ay mètre comme li nit ñi di def tey nangu terrain jàmbur tëdd ci wala nga gis koo xam ne day changer borne yi dugg deux mètres trois mètres ci suufas jàmbur loolu yenent bi waxut loolu waaye li muy wax rek koo xam ne bi muy samp ab bantam puus na ko tuuti rek yaatuwaayu loxo nii nga jël ko ci suufas jaamur ca moomoo ko yowmal qiyaama yàlla day wax malaaka yi bëtt leen suuf ba juróom-ñaari suuf ca loolu muy wane ne mbokk suuf yi juróom-ñaari couche la yu tegaloo bu dee ne scientifique yi li ñuy wax nee nañ guddaay bi six kilomètres la yi nga noonu mooy rayon suuf six kilomètres la moom la ñuy bëtt ba ca suuf ak guddaayi toll ba na mu toll wala guddaayi kër ga na mu toll moom lañ lay yen yoomal qiyaama waaye yen boobu diis na de loolu mbir àdduna jarul loolu loolu ca it yonente bi alayhi salaam teg na ca ci beneen xadis laana allahu man gayyara manaara al ard yàlla na yàlla rëbb kiy soppi point mooy bornu suuf yi seq ñit ay tool seq ñit ay kër nga bàyyi ba kenn nekk fa nga ñëw puus borne bi dugal un mètre ci sa kër ku mel noonu yàlla subhanahu wa taala rëbb na ko masa am benn ci saxaaba yi jàppatuma tur bi waaye ñu ngi ñëwoon ci Omar ibnul As di attewoo ci moom benn jigéen porte ko plainte ne kii dafa ñëw dugg sama biir tool jël sama tool waa ji ñu laaj ko mu ne man nan lay déggee yonent bi alayhi salaam nee na ko dugg ci toolu jaambur lu toll ak shibra dañ la koy wékk yowmal qiyaama ba pare man may dem di def loolu daa di ne nañ seet li ko neex ci sama tool ñu delloo ko ko waaye yàlla bu dee day fen yàlla na nga ko silmaxaal fitnal ko ci toolam boobu ndaw si avant muy dee daa silmax bis lay dox ci biir tool bi rek daalu ci benn sayaan foofu mooy fa la yem loolu muy wone ni tooñ baaxut yi nga noonu su ko defee kon muy wone ni jullit bi waroon na sax su ma nee xam ne sama kër fii la yem su ma noon a puus ci biir këram quelques centimètres sax ngir bañal jël suufas jaamul sax loolu moo gën bañ a xeeb dara ci tooñ boobu am maa ñaareelu xadis bi ki nga xamee ni nii sunu borom day wax rek ci ab aayam yonent bi alayhi salaam mu ne yàlla dana muñal aji tooñ ba bis bu koy jàpp du ko rëcc yàlla mu ne nii la yàllay jàppe dëkk bu ñu tooñee ndax ay jàppam lu tar la ca lu metti la amoon nañ benn mag loolu la daan wax danaan soo tooñee day dem doo gis benn conséquence nga xëyaat tooñaat dem ah tooñ daal dara néewu ci ngay tooñ rek ndekete tooñee ña ngay dem di dajaloo ji rek nee na bis la ñuy ànd nag ñoom ñépp rek ñoo xëpp sa kaw gis ngeen lu baax it nee na noonu la man ngay def lu baax doo gis benn résultat am ngay def lu baax doo gis benn résultat am fekk ma ngay dajaloo bis lii mës a ñëw rek añ ba ñëw sa kaw su ko defee kon noonu la yàlla di muñale tooñkat yi donte ne sunu borom yàlla ci njéggalam ak yërmandeem muñal gëm leen di muñalit ku ci tuuboon avant musiba di dal sa kaw yàlla baal la wañu ne kon dulit heure bu déggee lii fekkoon yaa ngi ci tooñ da ngay dellu tuub dellu ci sa borom subhanahu wa taala ama xadis biñ ko ñetteele di xadis bu siiw mooy yonent bi alayhi salaam bi mu yónni Muaz ca Yemen mu ne koy Muaz yaa ngi dikkal ñoo xam ne ahlul kitaab lañu te loolu tamit dafa baax nit ki heure booy waaraate ci mbooloo nga xam ña ngay waar lan mooy seen mentalité soo ko deful rek sa yàq moo ëpp la ngay defar loolu moo tax ba dëkk bu nekk borom xam-xam yëfa juddoo yaroo fa xam ko ñooñu ñoo leen mën a waar amaa gan bu ñuy mën a def musiba ñii ngi dikkal ay ahlul kitaab lañu kon ñoom xam nañ ay allaaxira ak ay yu bari xam nañ ko waaye nag dañuy bokkaale ak seen borom kon boo demee insister ci tawxiid woo leen ci ne Isa du yàlla Maryaama du yàlla yàlla rek mooy yàlla woo leen ci tawxiid soo demee ba yëg ne loolu nangu nañ ko su boobaa nag nga xamal leen ne yàlla farataal na ci ñoom juróomi julli te loolu yi tamit mbokk mooy étape bu njëkk nit ki bala nga koo waar ci jullee ki koor fexeel mu gëm yàlla d'abord gëm ne jaamu yàlla la yàlla yor njëriñam yor loram loolu bu demee ba sax ci xolam rek yeneen yépp day yomb amma loolu bu amul loo mën a placer bu yàggee shirk da koy daqaat xamal leen ne yàlla farataal na ci ñoom juróomi julli ci bis bi ak guddi gi te loolu tamit moo tax ba ñu xam ni diiru 24 heures bu nekk nit dafa war a julli juróomi yoon xadis bi ñu leen junjoon sànq ci xadisu dajjal ne bisam bu njëkk ci kaw suuf day durer un an saxaaba yi laaj nañ yonent bi bu keroogee nu ñu def ak julli mu ne natt leen ko ak natt dafa mel ni yonent bi xamoon ne ne montre mi nga nar a xew am déet mais sinon bu jant bi ne dàng fii ah nga xam ni kenn xamul fan fan la waxtu wi toll mais da ngay xool tey suñu jamonoy tey ji daanaka nit ñi soxlaatuñu di xool ay jant ak yooyu ak montre yi dañuy xam toujours fu ñu mën a toll mu ne natt leen ko ci am natt diiru un an la waaye la ngeen ci waroon a julli ci julli yooyu na ngeen fexe ba julli ko loolee kon jullit day xam ne ñeenti julli baaxul bari na nag ay sénégalais yoo xam ne bala ñuy miin julli daan julli fajar ak timis ngir ay musulaay mi ngi noonu waaye mbokk julli ñeenti yoon sax baaxul julli balaa baax day mat juróom da ngay xool ne bari na mbiri àdduna sax comprendre nañ ko tey suñ téléphone yi dafa am nombre de chiffres yooyu dugal ah soo bàyyee benn chiffre rek ndax dana dem du dem gis ngeen du dem su ko defee julli noonu la yàlla du ko nangu lu dul mu mat su matul yàlla bàyyee la ko gis ngeen gannaaw loolu xamal leen ne seen alal yi yàlla faratal na ci loo xam ne dañ ko war a jël yóbbu fan delloo ko seen faqir yi te loolu it muy lu am solo mbokk dëkk bu nekk alal jafey jóge ci borom alal yi fuqaraa yi lañ ko war a jox léeg-léeg it ngi gis ni heure boo nekkee ak i faqir xamal ne ñoo ñoo yey ci sa zakat faqir yi dañuy xam ne yow am nga alal waaw léegi yow xam nañ yow am nga alal alal ji ñoom ñi ngi dëkk ak yow vingt ans trente ans musuñu ci lekk dërëm ndax alal jooju dañ la ko yéene ndax alal jooju dañ la ko ñaanal kon ñeneen ña ngi koy jël di leen ko joxe ñooñu ña ca gën a yey mooy say dëkkandoo ak mbokki jege ñaale yi nga xam ne même bu dee dëkkaloog ñoom xam nañ ne sa mbokk nga ca xam nañ ne am nga alal ñooñu boo jëlee zakat ñoo cay priorité ca nga jox leen ko ndax loolu mooy ñuy teggal xadis bu njëkk ba ñu jëta jàng ne moytu leen xir ñu jëkk ñi la taxoon ñuy tuurantee deret mooy faqir yi dañoo dëkkoon ak borom alal yi ca borom alal yi amuñu woon lenn luñ leen di jox ci seen alal loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax say dëkkandoo ak say jegeñaale ñoo gën a yey ci sa zakat ci keneen ku dul ñoom nañ ko jël ci seen i borom alal delloo ko seen i fuqara mu ne nag ay muaz lii boo xasee dem ba def ko maa ngi lay moytuloo maa ngi lay moytuloo ci la nga xam ne la gën a tedd ci seeni alal ca mooy bu jëkk ki nga xam ne mooy représentant état bi mooy dajale zakat yi te jamono yooyu yëpp xaalis liquide ni mu mele nii melu ko woon alal ji mooy lan ay tool la ak jur su ko defee agent de l'état bi mooy ñëw xool tool yi ne temps la war a génne xool jur gi ne temps la war a génne mu ne ko nag soo demee ba jël zakat boobu bu ko jël ci la gën a tedd ci alal ja donte ne duñ ko jël ci la gën a suufe ci alal ji su ko defee dañuy xool nag yi masalan war na jël lu mat 40 nag dañuy jël ñaar fukki nag yu baax ak ñaar fukki nag yu yemamaay yi waaye duñ tànn rek 40 nag yoo xam ne yu gën a baax la suñ demee ci dugub ji gerte gi tàndarma ji naka noonu dañuy xool lu ci digg doomu ñu jël ko mu ne ko nag moytul tooñ te mbokk ki gën a gaaw a mën a tooñ mooy buur am déet ki buur moo gën a gaaw a mën a tooñ mu ne ko nag moytul tooñ de gis nga aji tooñ ji heure bu yëkkatee loxoom di ñaan yàlla dara du dox digganteeg yàlla ci ñaan googee kooku julit la yéeféer la kum mën a doon yéeféer yow julit boo ko tooñee mu ñaan la yàlla ñaan gi mën na la dal ndax sunu boroom mooy ki nga xam ne dafa maandu te bëggul tooñ loolu it muy wane ne bari na ñoo xam ne dañuy alag léeg-léeg seen njaboot sa doom def la loolu naqari nga ne ko yal na nga torox yal na nga alko yal na nga dee fa lay jóge alko ba faw dégg nga parce que daf la tooñ loolu it muy wane jullit tamit heure bu yëgee dañ ko tooñit war na xool la muy wax ndax lu mu ñaan yàlla mën na ko nangu bokk na sax la xel nangu comme yow tooñ nañ la te boo ñaanee yàlla nangu nga ñaanal sa bopp ah yàlla defal la jàmm am déet comme boo ñaanee yàlla nangu moo gën ngay ñaan musiba boo xam ne doo ci am benn intérêt loolee kon ku nekk ñun war a moytu la nga xam ne mooy ñaan ci tooñ goo xam ne nii ñaanu koo xam ne nii dafa tooñ mi ngi noonu xanaa ñu mujj xadis bi rek insha allah عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبي على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاه أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه
xadis bi ñuy mujjee mbokk ki kay nettali mooy abdurahman ibn saad alsaadi radiallahu anhu mu ne استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن لطيبية على الصدقة yonent bi dafa yónni woon kenn ci sahaaba yi mu war a dem jëli azaka yi falamma qadima qaal ba mu dellu see mu daadi ne haaza lakum lii ñen la leen mooy azaka yi wa haaza uhdiya ilayya amma lee nag moom dañ ma koo jox hadiya may ma ko fa qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al minbar yonent bi yéeg ca kaw minbar ba fa xamida allah wa asna alayhi mu daal di sant yàlla tagg yàlla thumma qaala amma baad fa inni yastamilu rajulan minkum mu ne man de danaa yónni rajula minkum góor gu bokk ci yéen alal amali mimma wal mimma walla ani llah mimma walla ani allah ci jëf ci li ma yàlla féetaleel ma war koo féetewoo fa yati fa yaqul haza maalukum wa haza hadiyatun uhdiyat ilayya bu ko defee mu ñëw naan lii seen alal la lii nag hadiya la boo xam ne dañ ma ko may afala jalasa fi bayti abihi wa ummihi xatta taatiyahu hadiyatu in kaana sadiqin in kaana sadiqan ànd lu teewoon mu toog ci kër papaam ak yaayam ba hadiya ba dikkal ko foofu bu doonte ne moom aju dëggu la wallahi la yaxuzu ahadun minkum shay'a maa ngi waat ne kenn ci yéen du jël ci alal ji dara bi gayri xaqihi ci lu àndul ak àqam illa laqiya allaha taala lu dul dana masa dajeeg yàlla yaxmiluhu yowma alqiyama di yenu loolu mu jëloon ca du àq yowma alqiyama fala aarifanna ahadan minkum mu ne man day du ma nekk di xam kenn ci yéen koo xam ne dafa dajeeg yàlla yaxmilu bairan lahu ruga ma nga yenu gileem goo xam ne ma ngay jooy na gileem di jooyee aw baqaratan laha xuwaar wala mu yenu nag woo xam ne ma ngay nay di jooy comme ne nag di jooye aw shaatan tayairu wala boog am xar moo xam ne ma ngay mbeem thumma rafaa yadayhi gannaaw bu mu yëkkati ay loxoom xatta ruya ufratu ibtayhi am nañu jàng bayaani ibtayhi mooy la nga xam ne mooy weexaayu poqtaanam ya fa qaala allahuma hal ballaxtu mu ne yàlla ndax man jottali naa salaasan ñetti yoon muntafaqun alayhi loolu daje nañ ci bokk xadis bi day wone li ñuy tudde tey corruption corruption waa ji yàll yonent bi alei salaam yónni na ko mu dajale azaka yi su demee ci tool moom ma war a estimer tool bi ne temps la war a génn bu ñëwee ci gur ci jur gi moo koy évaluer ne temps la war a génn léegi nag day ñëw gars yi dañ koy gàttandu jël ay cadeau may ko buñ ko mayee ay cadeau su ko defee buy estimer seet na mu gën a baaxee ca ñoom mu defee ko noonu léegi nag ni bisi na indi na zakat bi waaye am lu mu teg na la de côté ñu laaj ko mu ne lii mooy seen zakat léegi moom dañ ma koo may yonent bi alayhi salaam waxul ak moom woowu ko wax ak moom waaye dafa dem ci kaw minbar bi ca loolu mi wàññe ni minbar bi du ne ajjuma rek la ci daan yéeg heure bu ma saan di wax lu am solo da daan yéeg ci kaw minbar bi ñépp di ko dégg mu ne maa ngi yónni ay nit ñu ñëw naan lii yéen a ko moom lii dañ ma koo may su dee ne rek jàpp na ne yeyoo na ñu koy may jarul muy ñëw di liggéey sunu zakat yi teewoon a toog kër papaam ak yaayam ba ñu fekk ko fa may ko fa te mbokk loolu da ngay gis ne ñu yàlla nattoo ñu nekk inspecteur impôt ñu yàlla nattoo ñu nekk ay douanier yàlla nattoo ñu nekk ay poste yu bari gaa yi fay ñëw lépp luñ la may ci alal corruption la imma may na la ko ci loo ko defal lu jaarul yoon wala lu mu bëgg nga defal ko ci kanam ci jaarul yoon ñaar yi rek a mën a am su ko defee loolu di mbir boo xam ne bu jafee mucc la gaa yi lay corrompre mën nañ laa jox directement mën nañ laa jox indirectement am na ñoo xam ne seen kër la ñuy dem ak jaar ci say mbokk ak kaza wa kaza mais yow maadaama yaa ngi ci poste ñi ngi lay fay salaire pour poste bi da ngaa war a liggéey yeme la ñëpp te boo yemelee ñëpp gaa yi duñ la jox gaa yi buñ lay jox dafa am luñ bëgg ci yow loolu di mbir moo xam ni yonent bi alayhi salatu wasalaam nag ne képp koo xam ne jël na loolu na xam ne jël na loo xam ne nii lu xaraam la muy corruption boobu amma même yow julit bi koy joxe it amoo droit di ko def lu dul ci loo xam ne da nga caa loro lu dul loo xam ne da nga caa loro mais heure boo ko defee bañ jox la aqi jàmbur xamal ne sa boobaa yéen a yem yonente bi alayhi salaam mu ne laana allahu rashi wal mustarshi ka nga xam ne mooy ger ak ka ñuy ger yépp yàlla rëbb na leen amma nag yow bu dee da ngaa yor fii say aq waa ji bloqué aq bi lu dul nga jox ko dara su boobaa yow la nga koy jox yaa ngi koy jox ngir sauver say aq mais joxoo ko pour am aq boo méritoowul amma waa ja koy lekk moom par A ou B kooku ma ngay def lu xaraam maadaama poste bi dañ ko fee teg di ko fay salaire ngir mu liggéey liggéey bi warul d'accord encore nit ñi ñëw di ko jox xaalis ngiree ne muy def loo xam ne nii dootu ko mën a yemele ak ki nga xam ne joxu ko xaalis yal na yàlla laabal suñu société dëpp la ñoo ngërëmam ci suñuy liggéey ak suñu mboolem yi doxalim ci àdduna wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad